bi ñu génn date boobu kat dina nekk ci taarixu Sénégal loo xam ne kat mësta am waaye laataa rek ñuy daal di résultat nga xam ne moom ña ko war a def di juróom-ñaari saa yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil constitutionnel la gis na ne électeurs yi nekk fii ci réewum Sénégal gi ak ci diaspora bi maanaam ci bitim réew ñoom danoo tànn Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne moo nekkoon ancien inspecteur des impôts et domaines tànn gun ko tànn loolee mëgg tukkee ci xam ne ñoo doon jogante ci loo xam ne kat bëgg rek yor nguur gi Ousmane Sonko moom mi nga xam ne dañ ko yóbboon ca nungu siin waaye itam rek moom ki nga xam mooy Bassirou Diomaye Faye dafa daal di faagaagal ay parti nga xam ne ñoo fi nekk ba tey ba tax na ku ci mel ni rek euh, parti au pouvoir di waa ak taxaw Sénégal bu xalifa sàll réew bu sa Seck PUR bu Serigne Moustapha si grand parti bu Malick Gakou ak yenn candidat yoo xam ne sax ñoom dafa mel ni itam rek kenn seenu leen lu ci mel ni Boubacar kamara Mamadou Lamine Diallo wala Thierno Alassane Sall defet bi nga xam nag moom la alliance lépp lu république am di coalition benn bokk yaakaar mi nga xam ne daal nee day jàppal tànk njiiti réew mi dafa mel ni tamit ñoom tamit ngelaw li sax daf leen daal di yóbbu waaye mu am benn xar kanam bu nga xam ne moo judduwaat beesal tàq ci at mi nga xam ne mooy bu 2024 loolee ñeel wala ngum politique bi ci contexte bi nga xam ne kat soppiku dafa am Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xam ne dana nekk njiiti réew moom ci boppam dina am lu yaatu loo xam ne mooy liggéey bu koy xaar doomu njaga ñaaw bi foog mu xam ne yoon bi dina am nag ak i dëj électeurs yi ñoom dañoo tànn rek tànn rupture ci wàllum politique daal di koy tànn moom Bassirou Diomaye fay sénégalais dañuy xaar ci moom bari na wàllum gouvernance politique ak ci wàllum koom yan coppite la war a indi ci wàllum présidentialisme ban administration ban justice loolu ay laaj yu samp la kon naka lañ mën a fexe ba secteur yi nga xam ne dafa lompoñ fexe rek ba daal leen di gën a buux loolu tamit laaj bu samp la conception bi nga xam ne maanaam gis-gis bi nga xam ne moom la sénégalais am ci wàllum politique ñu bëri gis leen kat coppite am na ci Bassirou Diomaye Faye ak parti ba mu bokk ak lëkkaloo gi nga xam ne def na ko moom kat foog mu ànd ak tekk ak waaye tamit bu wax li nga xam ne moom la mën def ndax jamono ji moom mbir mi amatul xaar ndax ñu bëri dañoo yàkkamti